dellusiwaat nag yéen seen jotaay daara Halimal Irtiqa ngeen ci seen mbokk Moustapha Mbacké Diouf e, feggu ak suñu e, caméraman di Serigne Gora Diallo di nuyu borom kër gi Cheikh Mouhamadou Mansour Diagne di nuyu e, son Fat Kiné moom it ci jàppandal gi di ziare auditeurs ak auditrices yëpp téléspectateurs yi nga xam ne jotaay bi du leen raw mbokk yi ñu ngi woon ak ci Serigne Touba. jotaay bi mu joxewoon wala yitte ji nga xam ne joxoon na xam-xam ñu mon buñ ko doon teunk kon da naan talibé bu nek li wara jitu ci yow moy nga sàkku xam-xam niko Cheikh Mouhamadou muntaha de waxe yalla nako yàlla yagal dessal ko fi da lan wax ne talibé bi da war defal bopam ba jek door ko jébal serigne bi serigne bi waxoon na ne yitte wo xam-xam xamé farata yi ak sunna yi moom la murit di war a soxla walif muy tàmbali leneen ko loolu ndigal Cheikhul Khadim la yal yàlla fayal ñu ko yàlla dimbale ñu jëfee ndigal yooyu le tey ñuy waxtaane Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ak xam-xam ak jaamu yàlla boog Serigne Touba ak jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa jaamu yàlla nag mbokk yi moo tax ñu bind jinne ak doomu aadama jaamu yàlla mbokk yi moo tax suñu boroom wàccee doomu aadama ci ko suuf Cheikhul Xadim radiyallahu anhu joxoon ko ay wàccuwaay yu rëy bind ci lu bare bare bare jaamu yàlla buñ ko doon tënk mooy ëmb lépp lu yàlla bëgg gërëm ko ci ay wax ak ay jëf muy lu feeñ ak lu nëbbu ci diine ak ci àddina dëgg dëgg jaamu yàlla nag buñ ko doon wax mooy fi'lul awamir wa tarku nawahi bàyyi tere yi jëfe ndigal yi ci ndigal yi mooy lépp lu yàlla bëgg gërëm ko loolu mooy ndigal yi tere yi mooy lu yàlla bëggul gërëmu ko ñu bañ la caa seen kon loolu mooy dëgg-dëggi jaamu suñu borom subhanahu wa taala saa yow wuute ak moom nag bokk yi booyee boo génn ci dënd bi xam ne yow amalatuloo njëriñ yàlla ci ko suuf sa mission bi taxoon yàlla wàcc la ci ko suuf bokk yi Eh, juum danga nga rate da nga datteelu da bàyyi li taxoon yàlla bind la Sëriñ Tuubaa nee na diine dey yaari ponk la ni ko waroom xam-xam yi waxe ñoo ko ban la mu ne lépp moo ëmb jaamu yàlla mu ne mooy bàyyi tere yi jëfe ndigal yi اعلم بأن الدين سطران كما نص به قبلي بعض العلماء فأول ترك المن ترك المناهي مطلقا دع المناهي لباق أطلقا والثاني فعل كل شيء أمرا به ومن يدهم يكفي ضررا جفن ديغاني باي كراي أمو لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جنك دوما عدم موم لي بن لين موي جامو buñ ko deful rek amatul njëriñ ci kaw suuf kan kenn ku nekk del jàngat sa bopp yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi tabax yaa ngi liggéey yaa ngi tukki yaa ngi dëkk yaa ngi dem ak a ñëw di yëngu di riir lu ne yaa ngi ci nekk ak sa njaboot waaye question bi nga war a poser sa bopp mooy ndax yaa ngi jaamu yàlla borom bi subhanahu wa taala wala déet ndax yaa ngi jaamu yàlla kon ku nekk loolu nga war a bàyyi xel bokk yi شاول خديم رضي الله تعالى عنه خيرن تلال يتوكو فوز يدوم المنى والفرح لمن بعلم وبشعي يفرح ليس يفوز بالمنى في أبد إلى الذي علم ذات عب شاول خديم رضي الله عنه تخي دق دق قصح أك مبكتي موي كي خامني موغي خام خام دي جامو يالا جل خام خام ديكو جيفي دي جامو سوني بروم waaye du am ndam mukk wala xiiwal du tekki yàlla du ko gërëm du am lu baax ki nga xam ne mbokk yi e, jaarut ci tànk yooyu le jaarut ci tànk yooyu nee na ki yàlla dénkul xam-xam mu ci jaamu suñu borom kooku musiba dal na ko waaye ki yàlla dénk xam-xam nag xam-xam boobee mu xam ne yàlla dañ koo bind ngir jaamu ko mu sakku xam-xam di ca jaamu suñu borom sëñ Tuubaa nee na kooku rekk moom mooy am ndam joxe ay ndigal ci jaamu suñu borom subhaanahu wa mu bind ci lu baree bare mu ne yéen ndaw ñi seen lislaam mooy julli ginnaaw tudd yàlla julli woor natt azaka aj néegu yàlla bi subhaanahu wa taala mooy yaari baat seede yi te loolu la suñu boroom waxoon yonent bi yonent wax ko ci làmmiñam mu ne lislaam day ci juróom lañ ko tabax mooy seede yaari baati seede yi mooy gëm yàlla ak yonent bi julli koor aj makka natt azaka Cheikhul Khadim radiyallahu anhu nee na loolu taalibe bu nekk jullit bu nekk na ci bàyyi xel loolu mooy ponki diine mu bind daal di wax ne islaamukum yaa ayuha sigaaru liman lahu dunya wa tilka daaru zikru lilahi wa salaatun wa siyaam hajjun zakatun kulli di hatman yuraab kon Cheikhul Xadim radiallahu taala anhu ni mu diglee jaamu suñu borom subhanahu wa taala noon ci la nekkoon mu nekkoon léppam mu bind ko ci ay bind ngir xamle lan moo nekkoon yitteem ak lan moo nekkoon daal di waxaat ne baatub laa ilaha illallah muhammadun rasulullah julit bu nekk war naa cee sax taalibi bu nekk war naa cee sax ñu ne ko lu tax mu ne mooy li gën ci lépp lu jaam bi di tudd nee na ku ko woon ginnaaw da nga perte àddina ak àllaaxira kon Serigne Touba fan la ñu joxoon ci jaamu yàlla wa lafdu laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu l ilahu afdalu ma natahu man yadkur fa kullu man ankarahu fa yashkur kon riir mi bari na yëngu yi bari na ku nekk yaa ngi jàpp ne la nga nekk moo di taalibi moo di ndigalu Serigne Touba waaye mbokk yi lii ko sos jiitu ci mooy jaamu yàlla bor be subhaanahu wa taala eh, noonu la ko waxee ci julli mu ne taalibe yi nañ fonk julli nañ fonk julli góor eh, góor lu ci daldi ne boo ko defee da nga am leer gu mel ni jant boo bëggee am leer dëgg fii ak ëllëg suraat yowmal xiyaam sëñ Tuubaa ne del jullit nee topp yàlla ba topp yàlla jeex sëñ Tuubaa ne li ci gën ñu ne ko mooy mooy julli ci waxtoom wajtahidu fi salawaati alxamsi takun lakum nuuran ka nuuri shams waalam bi ann afdala taaati salaatana fi awali l awqaati Cheikhul Xadim radiallahu anhu nee na da ngeen góorgóorlu ci julli juróom yi bu ko defee dangeen am leer gu mel ni jant waye na ngeen xamne top yàlla gi gën ci top yàlla yi moy julli waxtu da na wax ci jangale mu reey mom yeen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xamne wala cheikhul khadim moko wax ci làmmiñ yonent bi serigne Tuubaa neena kep ko xamne xam ne nga lu dul julli wëlif leneen neena na musiba dana la dal man shagalahu salaatu an al asiyaa intafaa biha wa bil asiyaa ومن زاxulu اشياء an salaati lam yantafi biha wala bil achaay julli jot na nga yittewoo lu dul julli nee na da nga jëriñ ca julli ga jëriñu ca loolee nga doon def dagg sa dagg ko ngir julli nee na boo def dara lànk ne doo ko dagg julli jot nga lànk sëñ Tuubaa ne doo ca jëriñu doo ca am barke ci sa liggéey boobee te doo jëriñ ca julli ga kon mel ni ku fonkoon julli la wala boo leer na nañ fekkoon na ci Jurbel njaareem keroog bañ koy liggéey liggéey bu rëy boobi le waaye wax nañ ne ñii ne dañ doon sakket waaye eh, ba julli jotee ñu wéyale di def seen liggéey boobe ba ko sëriñ bi yéegee daf leen laaj fan ngeen toll woon bi julli jotee ñu wax ko ko mooy leen na ngeen firi loolee fa ngeen ci toll yëpp na ngeen ko firi ndax moom Cheikhul Khadim du teg ndigalam ci kaw ndigalal yàlla bor bi subhanahu wa kon Cheikhul Khadim yitteem yëpp moo nekkoon jaamu yàlla borom bi subhaanahu wa taala noonu la ko waxee ci koor noonu la ko waxee ci aj màkk noonu la ko waxee ci lu baree baree baree bare mu ne wasaytukum yaa man taallaqu biya fi sirri wal jahri li waji rabbiya an tatruku muharraman wa ma kurih li waji rabbikum wa kullu mustabih min man alima aljami fal wa man biha jahala fal yurafiqa maa ngi leen di dénk daal ci lu feeñ ak lu nëbbu lu araam ak lu ñu sib moom nangeen ko bàyyi li ma leen di digal daal jaamu yàlla yii nag am na ay téere yu ma bind yoo xam ne kuy ab murit bu jigéen ak murit bu jigéen góor na ci bàyyi xel mooy bind naa ci ay téere digal leen naka la ñuy jaamu yàlla na ngeen ci bàyyi xel kon mbokki Cheikhul Khadim itam yëpp moo nekkoon jaamu yàlla liggéey yàlla buur bi subhanahu wa taala nee na nañ dundal waxtu yi ci naafila ginnaaw farata yi kon kuy digle naafila bàyyi far bàyyiwut farata nee na nañuy woor na nañuy wiirdu di tudd yàlla fu ñu toll nañuy saraxe nañuy jël suñ alal yi jox ko yàlla boor bi subhanahu wa taala bañ koo jaam bañ cee bañ koo jaamu moom alal yi ndax ba sa ñëw boo xam ne incha allah danañu ko laaj sëriñ bi bëgg na saa ñu laaje ca kanam yàlla boor bi subhanahu wa taala ñu am tontu bind na bàyyi fi wax nañ ñu dégg eh, kon ñoo ngi ñaan yàlla boor bi subhanahu wa taala mu bokk ñu booleen ci ñi jëfe ñaan yàlla gërëmal ñu ko Moustapha Mbacké Diouf ngeen ci àndaloon Euh, sëñ Gora Diallo moo nekkoon ci réalisation bi ak euh, technique bi ak soxna Fatou ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant leen jox dox dig daje euh, beneen jataay ci beneen émission wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.